asalaamaaleykum mbokk yi euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di waxtaan ak militants yi euh, waa PUR yëpp ak waa Sénégal yëpp dama bëggoon d'abord bala may commencer jaale ñi nga xam ni euh, dañu ñàkk seen bakkan ci manifestation yi passé mooy ñetti xale yi nga xam ne yàlla moom na leen ci manifestation yi ñuy condamné nag bu baax a baax violence

bu baax a baax violation yi nga xam ne gis nañ ko ci ay jigéen yoo xam ne dañ leen a jàpp ci manifestation yi daal di leen néewal doole daal di leen dóor daal di leen gaañ ma koy naqarlu bu baax a baax a baax mais surtout may naqarlu li nga xam ne violence boo xam ne dañ ko exercer ci une personne handicapée ñun ñëpp ñu gis ko ma naqarlu ko bu baax a baax baax sunu mbokk yooyu mérité ou ñu exercer ci seen kaw violence li ñu mérité mooy ñu jàppale leen mooy ñu accompagner leen mooy ñu gunge leen ba ñu manu dundu dund dund koo dundu dund ko am solo la parce que ñoom it ay citoyens lañu bu ñu amee lu leen naqari ci dëkk bi am nañu droit manifester de kenn waru leen violenter donc damay wax ne on condamne la violence d'où qu'elle vienne jaaduwul force de sécurité yi ak force de défense yi war nañu xam ne ay sénégalais lañu ñiy manifester ay sénégalais lañu seeni sœur lañu seeni mbokk lañu seeni frère lañu donc amna lo xamné xajul entre sénégalais té rafetul ñu koy ñaawlu bu baax a baax sama message u tey message u euh, félicitation la message u euh, jaajëfal euh, wa PUR yëpp tous les militants di leen wax ni gis naa seen taxawaay gis naa seen engagement gis naa seen mobilisation sur le terrain.

nek ci sunu campagne bi nga xamné ne nañ ne yoon sunu droit sunu constitution moom moo ñu ko jox donc may wax ñep ñu continuer mobilisation bi fepp fo xamné ñu ngi fa may wax ñep né sunu VAD euh, visite à domicile yi nga xamné ne euh, ñu ngi koy def pour gëna présenter sunu programme nit ak natangé ñu continuer VAD yoy ñu continuer caravane yoy Sénégal tollu na fo xamné ni ah il faut que ñun ñep ñu taxaw il faut que ñun ñëpp ñu def li nga xam ne moom la réew mi laaj li réew mi laaj nag mooy ànd ak fulla ak fayda taxaw ba sunu démocratie ñu euh, ñu jëmmal ko ba violation bi nga xam ne def nañ ko ci sunu constitution muy violation boo xam ne dañ koy dakkal ba sunu droit en tant que citoyen sénégalais droit boobu ñu jot ko mais ci jàmm euh, ci dal parce que ñun ku ñu xam xam ne nekkuñu ci safaan nekkuñu ci violence nekkuñu ci lo xam ne day donc may exhorter di encourager militants yep, ñu continuer ci euh, mobilisation bobu mais dans la paix mais surtout ñu respecter euh, alalu waa réew mi ba kenn du yaq dara ba kenn du def poser ben acte bo xam ne dina yàqal kenn ci ñun c'est pas ce que nous souhaitons fan yii di ñëw inshallah dina ñëw ànd ak euh, sur le terrain ñu continuer def suñu VAD ñu continuer def suñu euh, suñu campagne comme nous ko wara défé parce que dañu gëm né élection présidentielle bi dañ ko wara a organiser ci nu mu gëna le 25 février ñun ci lañ japp ci lañu organiser élection bi wala bok bu conseil constitutionnel génnee décision ñu xam su boobaa nan lañu wara taxawé bala may jéxal ma bëggoon aussi euh, souhaiter euh, un bon moment de carême ci sunu mbokk chrétien yi nga xam ne bientôt fii ak ay fan yu néew a néew a néew daañu commencé seen carême di leen wax nañu ñaanal Sénégal di leen wax nañu ñaanal réew mi ci période bii nga xam ne euh, période ñaan la ci seen diine ñu bëgg ñu ñaanal Sénégal jàmm dellu si fi ñu bëgg ñu ñaanal Sénégal réew mi mucc parce que bu réew mi muccee ñun ñëpp ñu mucc donc di sant ñëpp di encore une fois au nom euh, du président au nom de tout le directoire et au nom de l'ensemble en tout cas des militants du PUR Mangi ngi jaajëfal ñëpp ci sen taxaway, ci engagement mais surtout ci mobilisation bu am solo bi nga xamni euh, yene nga koy am depuis quelques jours Inshallah, ci fan yi di ñëw dina and ak yéen ñu caravane Dina and ak yéen ñu VAD ah euh, di gërëm